moom laa nekk di wax ne la. allez-y Aliou. j'aimerais bien être écouté parce que euh, man dama juddoo Sénégal màggee màggee France doon doomu immigré def ay études xaw am tuuti chance nag parce que je savais où je partais chez les blancs mais xaw ma woon lan laa fay fekk sama bàjjan yar déglu leen bu baax bis jot nday ji ma jur ne yow ak sa rakk dama leen di indi dama leen di indi France parce que xëy na mun ngeen am chance fii doon fonctionnaire à l'éducation nationale en France ma mère on a fait le collège on a fait le lycée on a fait la série B on est passé à la Sorbonne à Paris 1 à Tolbiac <laughs> Après, on a été à l'école de notaire de Lyon. on a fait du droit patrimonial on a fait gestion de bu ñu sonal ak man damay wax parce que xam nga problème réew mi si non problème. Euh, booy tu vas à un non il faut nga arrêter on est pas pour vous écouter nga naan ñu Sorbonne ak ay Dordogne waxuñu ci réewu Sénégal problème Sénégalais on est venu moi moi je suis déplacé pour ñoom mu wax ay fla fla nañu wax ci suñu ñuy développé ci réew mi ci arrêté arrestation yi wala ci problème Ousmane Sonko wala ci DGE wala ci yeneen ci yooyu la ñëw mais kii kii kii arrête avec son lui il aime trop faire son cinéma plateau bu mu def il commence à faire son ça même parce que yow rek la impressionné mais ah. il faut qu'il arrête mais dafa am lu muy lu muy expliquer non sa personne sa personne sa personne moi moi euh, wax ñu ci problème réew mi tax ñu wax ci man d'accord moo tax ñu wax ci man ba ne ma dama ba ne ma dama malhonnête c'est vrai ba ne ma je suis de mauvaise foi ci ab sujet la ñuy wax ñëwal ci sujet boobu nga wax comme nag dañu wax ci man dañu wax ci man man je suis je vais je vais dinaa ko wax de dinaa ko wax du nee nañ dama am xam-xam ñi ma ñi may xas ni dama maloon rek ñoo ne dama am xam-xam au moins sax foofu remercier naa ko waaye sama xam-xam nag ma duma ko saax-saaxee ndax j'essaie d'ouvrir les yeux hmm. ubbi sama bët xool ku si nekk lan ngay def ci réew mi merci beaucoup am naa tuuti lu ma mën nag ci àdduna xëy na nag peut-être je suis de mauvaise foi c'est bien mais xam-xam rek comme am naa xam-xam rek baax na parce que ki nga xam ne moo leen naan da nga mauvaise foi ki nga xam ne moom naan la yow yow yow yow tekkiwoo dara kooku moo leen ne moom dafa am xam-xam moo reconnaître sa xam-xam. xam-xam ragal yàlla moo ko jiitu ak honnêteté. Euh, soo amee xam-xam te amoo honnêteté ça ne sert à rien tout. je a personnaliser. je termine je termine non xam nga lu tax nee parce que ndeysaan. wax bi dafa doon. arrêtez d'induire euh, les Sénégalais euh, en euh, erreur da ngeen dem si plateau yi xaw ma ay mercenaires ngeen xamu leen duñ doon su leen ñëwee ngeen di réeral Sénégalais yi di wax loo xam ne xam ngeen ni du dëgg il faut que il faut que tarit yow ça fait plusieurs émissions yoo dem ñu toog di leen déglu wax bi dina yegg ne wala plateau boo dem bu fet wat cinéma commencé ñëw di ñu làkk ay tubaab di ñu wax tamit la France sama bàjjen bi maa ngi koy nuyu loolu ça ne nous impressionne pas loolu du ñu impressionné waxal ak Sénégalais yi si problème Sénégalais yi votre petite personne ne nous intéresse pas waaw kay jërëjëf jërëjëf voilà ma petite personne là. yaa ne dafa am pas. ma petite personne du am yow sa affaire mercenaire yi ngay def si télé yi di ko bàyyi man boo dajeeg man san passe pas bu doon keneen mais avec man san passe pas wax bi wax bi à un moment donné dina noppi dina ah. noppi ma yeggali sama wax ndax man waxuma ak moom ndax man borom xel yi laay waxal ak sénégalais yi ce que je veux dire c'est que je vais le terminer je vais le terminer par respect pour vous allez-y par respect pour vous et pour ceux qui nous écoutent mm-hmm. parce que nag fii sénégalais yi dofuñu. xool nañ ba mu neex la nga ne ko da ngaa mën a ne xool xoolal réaction sénégalais yi. tous les sénégalais dañ lay traité d'hypocrite. dama ne dama ne dama ne xoolal sénégalais xoolal dama ne ne ne baal ma tous les sénégalais dañ lay traité d'hypocrite. xam nañ la bu baax a baax itam xam nga lii lii la ñu bëgg lii mooy seen liggéey mais liggéey bi xam nga mooy lan mooy sénégalais yi. donc sénégalais avec man ça ne passe pas yi muy def nii man je l'ai tellement suivi sénégalais yi dama ne il fait tellement mal aux sénégalais man je l'ai tellement suivi. mais bu fekkee yaa moom plateau va se taire à un parce que man damay wax. bàyyi ko mu continuer ñu damay wax ba mu yegg. c'est dommage nag je me sens un peu mal. allez xam nga lu tax je me peu mal parce que man cooki rek laay def waaye je me mal parce que xam nga lu tax ndax dafa doon xale boo xam ne man. caméra bële la dama ko xeex man. métit lu ko. alxuraanul karim. kon bu ma na fanaane àllaaxira man ma xeex loolu métit lu ko parce que gëm naa ni. ak lu mu mënti def xale bi il n'est pas dangereux ba ngeen mën ko téye juróom-benn weer pour bàyyi ko mu dem loolu dama koy yuuxu fu nekk te je ah, continue à le penser mm. parce que loolu mooy dëgg ndax fi yàlla rek a fi nekk Ousmane Sonko même sur je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai je l'ai combattu Ousmane Sonko bi nekk à terre gis nañ la nga tiré ko plusieurs fois ci plateau yi te xam nga que ni dañu acharné aussi moom mu nekk à terre nga nekk ci plateau yi plusieurs fois di tiré sur moom non non non je vais terminer mais mënuñu ko bàyyi mu terminer mais mais il faut qu'ils arrêtent xoolal xoolal gis nga xoolal xoolal parce que là on perd du temps mais mais oui mais mais loolu lañu bëgg loolu lañu bëgg mais loolu du fi am Sénégal il faut ñuy wax ak xoolal nee nee Sénégalais il faut ñuy wax ak ñoom il faut ñu leen di wax il faut à un moment donné ils se taisent parce que si biir sujet si lañ ma ne dama malhonnête si biir sujet lañ ma ne dama mauvaise foi alors que loolu du woon sujet kon bu ñu ma si dugalee war ngeen ma mën a may ma wax ak sénégalais pour ñu xam après lu leen neex ñu xalaat parce que sénégalais dofuñu xool nit mu neex nga ne ko vous êtes de mauvaise loolu ci sujet la bokk si si la ne xam nga loolu bokk ci kon bu ñu ciy waxee il faut ñu leeral ay mbir xool nit ki fu mu jaar parce que nit ñi dañuy liñ ko téye parce que du dëgg du yoon ndax xale bi il est pas je l'ai dit léegi nag mais non bu weesoo loolu je ne pense toujours et je l'ai toujours pensé non je termine man je vous ai posé cette question je termine oui parce que jamais en général en général mm-hmm. du ci débat yu mel nii waaw dama bëgg rek nga dimbali ma saw ma wax ngir ngir yàlla ma yeggali parce que di nga yeggali di nga yeggali saw day nekk diversion saw xam nga ah, man dama la bëgg a ñaar def débat ba ci di def pour oui c'est que xam lu tax bàyyi parce que parce que man ah, man xam naa ni réew di doxee xam naa adduna bi xam naa ci lu bari bokk du lépp waaye xam naa adduna lu muy doxee man fu nekk dem naa fa. gis naa lu nekk dama ne xam nga lan la réew mi réew mi réew mi il faut mu doon réew dëgg. te xam nga réew dëgg mooy lan dëgg amul boor dëgg amul couleur dëgg amul yoon benn yoon kese la am mooy yoon ci yàlla. man quand on me parle de contumace. c'est bon c'est bon. quand on se met quand un monsieur qui va président de la République se met devant la justice de ce pays une justice qui a été organisée qui a été construite pendant des années teg ko. même bu amee ay faay kooku mu ne dafa bëgg a nekk président de la république kooku moo taxaw mu ne man faalewu ma justice du ma fa teg sama tànk ba kon max ñëw kooku nag la ñu ne ci ay stratagème entre moom ak nguur gi toll fi ñu toll nii ba yegg fii nii nii nii ci euh, kiiwu électoral bi ñu génnee ko ci fichier électoral bi kon Dumax boobu noonu lii moo ko indi mooy nit moo jóg taxaw mu ne man faalewu ma justice sénégalaise man demuma fa fii laay toog Ousmane munoo yàq deram de munoo yàq deram Ousmane ba ne damay yeggali rek de bàyyi leen moo parce que fii réew ñoo ko bokk man dama doon doomu lébu doon doomu pël doon doomu séeréer xoolal réew mi ñoo ko bokk fii laa bokk man ay tëggay siis mooy sama maam fii nii ñun ñun bokk na ci moom Ndakaaru dama ne xam nga la laa bëgg nañuy waxante dëgg te yàlla tax réew mi ci laa bokk te li ma indi ba fii man man taxawaaluwu ma man du ma koy taxawalu te ñi ma xam fii ci fekk nañ ma fi ma c'est clair euh, wax bi moo bari ak coow bi ak bi. dama ne xam nga gis nga contumax. mu contumax li contumax indi. fii y des opposants qui sont très braves. c'est clair Bougane mi il est très brave. c'est clair Aliou. c'est clair waaw mënoo leen di jaxase ak waa kër Sonko loolu yëpp yëpp naa fekk la affaire u naa fekk ngay def dama am une rencontre Ousmane Sonko te saa yoo waxee sa masque mu daanu mënoo jaxase kër Ousmane ak kër Bougane de Gueye Gueye daanu dama ne dama ne ma affaire hypocrite ngay def affaire u naa fekk ngay def parce que laa ñëw sa masque mooy daanu encore une fois da nga am une haine viscérale envers Ousmane Sonko ak waa Pastef il faut que man su ma jógee pour yow yaa war a noppi man su ma jógee pour opposition dafa sol masque sa masque bu daana nga wane sa haine. dama ne dama ne xoolal sama haine xam nga man boo déggee man si plateau ça passe pas avec